Salma Jàmbar la wax Boucher eh Boucher la wax eh Boucher la wax Boucher la wax Boucher Boucher la wax yëkkati nañ loxo Sa Thiès eh, yëkkati nañ loxo jeex na yëkkati nañ loxo xool leen xool leen journaliste yi réussite bu amee day yàq làmb stade bu toll nii ñaari fit bu amee chaque jour day yàq làmb ñaari fit bu amee chaque jour day yàq làmb